jàpp ni maa ko gën ndax nit a ngeen naan te ëppale la cër ca yàlla ndax nitu yàlla dana naan sàngara nitu yàlla dana njaaloo nitu yàlla dana toog ba jékki yëg boppam amatul soxla mu robb fii dem ci riyaasoor gi fay xaalis tëddëg jigéen ju ko dewut il faut faire attention nitu yàlla dana ko def nit yàlla dana dem fekk mbànd mu naan ci ba dugg ci fee jàpp ci génn di taaya dana mën na ko def mën naa dem fekk alalu jàmbur mu tege mu sàcc ko ni maa ko gën ndax nit a ngeen naan te ëppale la cër ca yàlla ndax nitu yàlla dana naan sàngara nitu yàlla dana njaaloo nitu yàlla dana toog ba jékki yëg boppam amatul soxla mu rob fii dem ci riyaasoor gi fay khalis te deug jigen ju ko lewut il faut faire très attention nit yàlla dana ko def nit yàlla dana dem fek mbànd mu nan ci ba dug ci fey jàpp ci génn di dana mën nako def mën na dem fek alalu jambour mu tege mu sàcc ko. Cheikh moy wax nit ci ne ab serigne mën na fay ci mom nga gis ci mom ay moy yàlla nan sàngara njaaloo te loolu tax nga war koo bàyyi wala nga war koo sax daal di euh, daal di critiquer wala lenn ndaxte moom nee na ñi nga xam ne ñooy waliw yu ñoom seen waliw yu ñuy tuddee waliw yàlla te lii xaq mooy waliw seytaan lañ mooy ne dañuy yenn saa yi dañuy nëbbatu nit ñi nëbbatu googu noonu mais dañuy feeñal mel ni dañuy def ay dañuy feeñal dañuy def ay bakkaar yu rëy lu ci mel ni njaaloo naan sàngara ay fawaaxish yu rëy yu rëy rëy waaye nag loolu dafay mel ni rek yow loolu dañ koy def pour nëbbatu mais xaqiqata nekkul loolu moo am dëgg mooy li ñu yàgg di dégg rek Sénégal damay naan sàngara euh, mu mel ni su jaaree ci put gi meew lay doon mais loolu pour nëbbatu la non nëbbatu gi da war a defar de moom moo la war a defar pare. da ngaa war a dem seeti ab cheikh bu la defar par force te cheikh bu foog moom cheikh mu ne si la wax dina expliqué ne cheikh yi bëri nañ ma ci ñi nga xam ne ñoo ñu mat pour defaraate bari nañ ñu ngi ci village euh, ñu ngi ci euh, bokk euh, yi la ñuy nekk bëri nañ fa torop ba pare nag suñu bëgg a nëbbatu awaam yi dinaa ni sax nga pare awaam yi ñu kon di leen topp inkaar mooy loolu en fait dootoo inkaar soo toppee rab yi li ñu ko waxloo subhanallah nga xam ne rab yu aaya day dem ba amru bil ma'ruf nahyun am parce que nit ku nekk mën naa ñu naan sànga def ak mbonte mais da jàpp ne kii ab wali buy nëbbatu la da jàpp ne kii moom egg na ca yàlla sunu borom waaye mbir yi yow maa gisul mbir yi bu baax rek dañ déglu nañ déglu li Cheikh ci page euh, trente bi ginnaaw ba muy waxee lu bari ci li aju ci euh, aarifoon ak ña nga xam ne ñoom ñoo war a defaraate ak seen diggante ak ña ñu war a defar ak fa ñu war a dëkk mbir yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan ak yenn saa yi jaxasoo gi li nga xam ne ta ñàkk ak awaam yi waaye nag bañ a loru ca ñoom bañ a feeñal seen degré yenn saa yi su suñ demee ba ñoo ñu bëgg leen a xeeñ ci ñu tàmbali di nëbbatu nañu nëbbatoo nii la ñu déglu Cheikh mbir yu doy waar la nag. حقيقة يديني من وربما شم العامة روائح وصولهم من وراء الحجب فنهضوا إلى التعلق بهم فيما يريدونه من أغراضهم فخلط العارفون عليهم بوجوه من التخليط استطارا عن العامة بإظهار أمور من الزنا والكذب الفاحش والخمر وقتل النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحكم على صاحبها أنه في سخط الله وغضبه من يعني سعيد لك عوامي دادي تنبلي خنتو نيوم اجنن ما يعرفوني تجينا وريدو ماي حجاب ييغا خامني ولا حجاب ييغا خامني موم مو نيو فاي با نيون مونو ولا غيسوغنو تي نيوم لا نيو لا نيو ورا ايغالي فوفو نون موريل نيو كو دي كو الحضره الالهيه mu ne awaam yenn saa da xencu ni nit ñi egg nañ nee na bis mu ko xencoo rek ñu bëgg a ñëw taalluq ci aarifun yooyu ci ñoom la ñu bëgg seen i ci seen i mbëbét mu ne su boobaa ñu commencé leen nag jaxase nee nañ jaxase mooy lan ni def mooy bi idhaari umuri min zina dañu commencé di wane ay mbir di jëf lan njaaloo karib faaxish fen moo damay wax est-ce que Modou Kama kon ñu ay wàllu fen yi da bari woon torop torop torop torop kon luy ñëw di di la ngay gis ñoom ay fen njaaloo rey nit sax ak yeneen mbir mu ne yeneen mbir yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne ku ko def dañu àtte ci yow ne kooku mi ngi ci merok yàlla sunu boroom طيب كذلك من هناك والأمور التي يقتحمها العارف في هذا الميدان إنما يظهرون صورا من الغيب لا وجود لها في الخارج إنما هي تصورات خيالية يراها غيرهم من هناك نيوم لول نون يدف نون عارفوني لول لاني فينيال بنين ينين إيماج لاني فينيال إيماج يو خمنا ينبولا أموت ما لول من لان أموت existul دقنتان أي imagination la rek ay illusion la yaa ngi gis aada ah, fi mi ngi njaaloo diggantaan njaaloo wut de naan sàngara njaalu sa rey mingi de mi ngi illusion la rek mu ne diggantaan njaay ñeneen ñoo koy gis mais loolu amut bu tekki mu ne فيفعلون في تلك في, تلك الصور من تي كون تي جيم يوي جيم يوي نونو خامنا يليجون كاد ني تان تي داف اي مبير امور ايها المنكر من كارا دنجكو دنجكو تيري في الشرع في الشريعه دنجكو داق دو نيو ديف ليب لو شرع داق وهو في الحقيقه لم يفعلوا شيئا وهم في الحقيقه لم يفعلوا شيئا تلي ام نك موي ديغنتان ديف ني دارا يانغو غيس مي جالو mi ngi fen mi ngi naan sàngara mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi loolu yëpp ñu defuñu ci dara dañ ko defee ngi nëbbatu wala ko amul yow a ngi koy gis de li nga yaa ngi koy gis yow man maa yaa ngi gis lépp ñu koy def loo xam ne wuuteeg charia mais xaqiqatan nañ koy nëbbatu léegi kon subhanallah moo tax sëriñ bi mën naa def lu ko neex gën dafa indi buntu ki gën a saay saay ki gëna bon ci nit ñi ki gëna ki gëna dëng ci aduna bi mën na doon sëriñ bu mag ci ñoom te mbir bi day na batu mën na nek ولو إذا عرفت هذا فقد اختلط الصادقون والكاذبون في هذا الميدان ولا يعرف هذا من هذا ولا حيلة لأحد في معرفة العارف الواصل منينك سفكين اللولو من سفكين انك سفكين لولو امنا يجيس نكون دايجا خاصو بيتو دايجا خاصو كي دقوك فين كتبي doko ragne ràññee nokay xamati parce que ki fen mo na moy moy ki dëggu ki do mo a ki moy ki te amul kenn comme pexe bu xam ko wala fi mas'ala nadira lool nak ci yenn yo xamne yu yenn question xamne yu raar la bi ghayatin <laughs> dam ne raar raar raar la ci ci boo am bu sori la mu ne yenn saa nag ñenn ñi met ñi sax yenn saa yi ñu feeñ ci lan ci fis ci feeñ ci li nga xam ne moom mooy jëmmu li nga xam ne mooy jëmmu sharia allahu akbar lii nii ku ko xam ci cheikh bëgg diine bëgg egg ci yàlla am seen xel da ngay daw xam ne lii du du lislaam nekkut lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nekkut ci lii la saxaaba yi nekkoon kon lii du lem li poson la moo tax ña ko ñam amum xel te feebaruñu seen làmmiñ ba tey mën a xam lu neex ak lu naqari bañ ko ñamee dañ koo yàbbi yàbbi nañ ko dañ koo yàbbi nañuy yàbbee lu naqari da ko fa ñukk ne yàqu bu naqari daw daal dem wuute yàlla sunu sunu borom ku ñetti mbir yi lañ bëggoon andil ki Matar Sarr ci wax ji mu wax ci ku ñam Cheikh doo ko doo ko doo ko bàyyi euh, donte lenn la rek lu ndaw ndaw ndaw ndaw ci mbir yu bari yu wane ne li tax borom xam yi dëgg bañ ko ñemee daal di koy daw wala sax nag ñu bari ñoom nag mosuñu ko ñam dañu ko séen xam ne lii ne lu naqari la asalaamaaleykum wa rahmatulah.